dañu am gàmm ci Tiwaawan woo Alaaji Mbóot woo Alaaji Tamsiir mu di ko gàmm fekk Sëriñ Babacar a ngi ci biir di ko déglu mu dal di rek xale yi ni ko ban bunt lañ lay wéyal mu ni waama uxdi a ma déy ko ni ko dénk ko def bu gën a woyof ma wax wax mu mu mu gàntal rek ñu woy waama uxdi a mu nekk ci ci guddi gi nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ba tabarkal mujj na ñuy déglu di miir moom itam muy miir ndeysaan nu xëy nag dem seeti góor gi ay naa tabarkal la nu ngi leen di ndokkeel ci guddi biir gi waaw ni ka ndokk sawal la tabarkal ah seen waa ji day sonn na biig de waaw mais waa ama udee de dafa dafa yombul waaw ndeysaan waa teggin ya mu ne dafa yombul nag mosula yomb wallaay tax ndeysaan nu réew ma ne ko moo tax day bëggamu gi jeex wax naa ci ñaari bayt mu ni ma ban la ma ni ko xaalal mufassiru ما قد قال فانتبهوا إن المفسر ما قد قال قد قال rek mu def ni mu daan def fi mu toog muy ree bu di ko dóor waaw walaay ndeysaan jël loxo bi di ko dóor ci kanam fi fi mu toog waaw قال المفسر ما قد قال فانتبهوا إن المفسر ما قد قال قد قال نقوى عام أهدئ بيت عز مسلكه لذاكم قال فيه الحبر ما قال
مكتوم بود
نانا li gën a yéeme mooy kiy jëf ci cadre ngëm kiy jëf ci cadre ngëm nee na la ca gën a yéeme mooy li nga miin ci moom te teewul muy toxu xam nga li gën a yéeme ki nga miin te li nga ko miine bés bu ne nga gis ko ci moom kooku bu ngeen jéggee fukki at nga yëg ci moom yokk fukki at dara gënu koo yéeme xamuloon xam nga jëf yiw judul yokk te yokk borom jëf yiw judul yokk te yokk borom li nga miin ci moom ci bëccëg bu dimanche bi gis ko ci moom moom ngay gis ci moom altine moom ngay gis ci moom talaata war na boo tegtale ni kii yokkuwul moo ne bu ngeen passé fukki at nga gis ni yokku na yokku fukki at loolu am na boroomi xam-xam yu jam diine nit diine dafa yokkat loo nit ndax li nga defoon rek ngay defar moo ne kilifa gi nga miin ngeen ànd ngay taal sondeel façon bi mu daan soli mbubbam yaak moom ba tey noon ngeen di soli mbubb façon bi mu daan sole dàllam ba tey yaag moom noonu lay sole dàll façon bi muy sole mbaxane yaag moom noonu ngeen di sole mbaxane façon bi mu daan waxee ak yow laaye yi mu daan wax ak yow xadis yi mu daan wax ak yow pénc mi ngeen toog yéen a ko bokk ba ngeen xëy mënatuloo jot ci moom ngir yokkute waaw loolu moo yéeme loolu moo yéeme ah bokkul ak ana diw ñu ni la ma nga ca Bamako waaw nga bind ko foofa ñu ni la jóge na fa ma nga ca Misra moo ku moom camion yi ñu ni la diw ba mu yàgg ñu ni la bato bële moo ko moom ngeen wéy fukki at nga rek le fukki at yi passé lu mu fi yokk doo ko gis doo ko gis waaw ndax bële kilifa ko tungoom bii pexe ko tungoom du benn moo tax ñiy layal diine ci làmmiñu tubaab ñiy layal diine ci làmmiñu tubaab am na ay philosophe yu gëm diine te di ko layal ci côté boobu ndax dafa am ñu ni li tax dugguñu ci diine moo di li ñoo tudde monotonie daf ci am monotonie mooy li fi nekk bis bu nekk dafay dem ba tayal lool ñoom ñu àtte ni ku jaawale monotonie ak routine xamu loolu xew xamu loolu xew ndax ñaari jéegoo am ki jéggi ki jéggi tegaat tànkam fa tànk ba nekkoon kooku demul fenn
Maktoum Prod.
walla ki jéggi xirul waaye tegaatul tànkam fa tànk ba nekkoon jéego bi benn la waaye place yi wuute na gën na yaatu lu mat a bàyyi xel la aha aha kii teggi tànk bi di tegaat fi mu nekkoon rek du dem fenn waaw ki teggi tànk bi te nanguwul mu tegu fa mu tegoon toppal ci gannaaw boo xeebul doxin ba di ngeen dem bu sore waaw doxi ni diine noonu la mel wa de Sëriñ Aline Gueye daan na wax ni liggéeyu daara moom métti walaay ndeysaan góor gu yéeme te sell waaw dégg naa ci làmmiñam mu ni ma naka jëkk dafa mas a nekk sama jom sama njàppum suba ma julli ci gée wallahi naka jëkk dafa mas nekk sama jom sama njàppum suba ma julli ci géey ah mu ni ma budul ko nag yàlla kilifa duma ci jóg waaye mu ni ma góor gi dafa mel ne am na bés mu junjuñu ko yeesal njàpp yiw wa ca ne dama looloo tax ma di ko yeesal waaye fekku ci benn bu toj na waaye daf daan wax ni seen liggéeyu daara yi moom métti ma ni ko lu ko mettiloo mu ni ma bëgg a boole al istifaada wal ifaaqa waaw wal ifaaqa mbooloo muy raj rajloo fa tabarakallahu te xiqi xiqi kenn la watu ci yombul wal ifaaqa al istifadatu wal ifaq nga boole leen mbooloo muy raj raj lu tëkku ci yeewu yi jàng lu ne doo génne sa bopp ca ca biir ñu ndaw ñi nañu la gise woon la góor ga wax ca at yële passé ca gàmmu Tiwaawan dal di jóg taxaw ci mbooloo mi ni maa ngi leen di ñaan duma mën a ñëw déwén waaw waa nii laa ko daan toggale Cheikh El Hadj Malick ba mu jóge fi ma di ko toggal seen bay ba mu jóge fi ba bi seen bay jóge ba léegi ma di leen ko toggal mënatuma waaw ma bëgg ngeen may ma déwén ma bañ a ñëw waxin la ndax ku jële ci Cheikh El Hadj Malick rek am nga loo tooge soo bàyyiwul nag booba am na leneen loo visé loo bëgg di ko defandoo ba di ko defandoo xale yi sugu juddu ca la mbaax yem waaw
Maktoum Prod
ifaaqa ba ca des moo di mbooloo mu xàmme li ngi jafe ku sa mbagg fil sa mbagg moroom nga ni ko bal maq waaw ci mbooloo te la xam na yem ku sa mbagg fil sa mbaggu moroom nga ni ko bal maq te la xam na yem jàlli sil fii nga ne ëpp naa des bàyyil ma toog fii te la xam na yem loolu moo tax yonent bi nee na jëf ndawewul fekk mu sax seen jëf ndawewul fekk mu sax ndax ak zawdu bi zawdi ibil ak zawdu doomu gëléem bu ndaw ah wallaay gàddu gëléem la bu ko xeeb mukk waaw bés bu ne gëléem gu ndaw ñëw nga teg ko ca gafa nekkoon bu yàggee gàddu gëléem ñëw nee na wóolu googu nag soo ca àggee moom ngay gis ñi talatul ñu tagg leen talatuñu ñu ŋàññi leen waaw ëpp ñu nit waaye seen jota ca àggatul du ne dañu ko sal ki nga xam ni ñàkk jotam àgg na ci du xaw a xam ne ki koy tagg ak ki koy ŋàññ waaw ci la wóolu sa bopp yem ndax moom ñett yàq nit boo ko talatul rek defaru waxteef wala yëgteef wala njëgteef boo ko talatul defaru waxteef mooy wax lu ëpp tagg dafa am fu muy yem ku ëppal taggam yàlla dóor ko ku ëppal taggam yàlla dóor ko tax mag ñi di ci muslu képp koo xam ni bu la gisee ni la yaay yàlla wattu ko bu ko yàggee wax yàlla dóor la wala yëgteef yëgteef mooy góor gi toog ci ruqam léeg-léeg mu ni ci xelam su boo xon ma diw xamu fu mu jëlee fasu naaraw bi ka bari wërsëg waaw du ko wuti kat ni yow waaw dafay fasu naaraw bi su booxun ma ko xool xoolal ñu ku yow su booxun ma ko xoolal xaru too bi rek su booxun ma ko waaw mooy yëgteef dafa yëg xeewalu jullit te du ko ko yéene waaw dafa yëg xeewalu jullit te du ko ko yéene waaye fa mu toog du fa jóg mukk moo taxit du dab kenn wala njëkteef Maktoum Prod.
njëkteef nag mooy ñëw làmb poosam ah kat damay liggéey ak diw ci bureau ba waaye daal da mel def ma fa bëgg a gañ waaw maamoon nag ñaari junni bëggoon daal nga daal ma fas parce que goo ma fasal daal ndax bala maa weesu rek ñu génne ko waaw njëkk njëkk la koy jënde njëkk te njëkk la koy jënde sëñ Ba fekk ne ca Ndar dama dem bay bëgg a naan café suba ñu ni ma sa mbokk sang ma ngi lay laaj ci borom ne ma ne ma jàmm la teel na di ma jóg ñoo tolloog moom mu ni ma sama wujj kët dafay bëgg a nangu sama jëkkër dana ma ni ko waaw da nga bëggoon ma waxtaan ceeg moom mu ni ma déedéet man kay dama bëgg a toog di ko yëg rek pour bu jëm ci sa jëkkër mu ni déedéet ci sama wujj ma ne ko ah waaw ma ne ko pour lu mel nan nee ma dégg ko ma li muy wax nee mu ne ma daal ñu mu walaay ndeysaan walaay ndeysaan nee na bu mujj ma xaw a xam li wax ma ni ko ah ma ni ko ëpp naa def ma ni ko loolu jëkkër jaru ko waaw ma ni ko jëkkër jaru ko ndax man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam ma ne ko yàlla ne ku faat bakkanu jullit da nga dem jahannam xeetu caalit la ci wàllu ki gëm xeetu caalit la na bañ a tal tagg ak ŋañ bu ko defee métti si dàq wax kat wolof nee na ku boot bukki xaj bawol ku boot bukki xaj bawol dégg na bukki mës nay xul-xul yu metti ni gaynde dal dafa am doole rek di tooñ nit ñi loolu ko loolu di affaire la de mu ne ah moom daal li muy def jàddoot am dooleem rek fekk booba dañu ni dégg bi nekk na ah gaynde ni kon rek na ma ñëpp wuy si alxames bu ñëwee ki ci gën a ñaaw rek ma rey ko ñu bàyyi ba alxames passé ajjuma bu ki di doxantu dajeeg kiwal ni ko yéen seen daje démb ba ku ngeen mujj rey mu ni ko dañu ko fomm mu ni ko lu tax ngeen fomm ko mu ni ko ñëwuloo mu ne ko bilaay bilaay gaynde mu ne ko mu ne ko mu ngi tooñ de mu ni ko ndax itam yàlla may la sa doole rek man ñëwuma ñëwuma xanaa mag ma woo koy ñëwul nga bàyyi ko man ñëwuma dika ndax laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab
Maktoum Prod.
waaw mu jeex mu jeex yàlla wax na yonent bi ni ko mag mu toll ni man su dee toog dina léebal naan la Ibrahima nii la meloon Moussa nii la meloon Isa nii la meloon pour nga mën ca jële noo mel yow itam waaye jubluwuma ci nag di la ko wax rek ngay katt su jóge fi dem sa yoon muy ko mukk loolu taxul laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab noo bëgg a mel rek mën nga ko mel ci bu ñu la nettalee ñi fi jaar yaay tànn nag yaay tànn yaay tànn waaw moo tax njàmbaar amul miin lu jafee am njàmbaar amul miin lu jafe moo am sa doom bu tuuti boo soppee fas di ko teg ca kaw muy gimmi di yab fas sa doom bu tuuti boo soppee fas nga am sa doom bu tuuti dee ko teg ca kaw diwa mën a tawat booba dafa soppul ya jara sopp ku sopp yi jara sopp yëpp dootoo tal tawat xamuloo li yi jara sopp boo leen soppee dootoo tal tawat waaw ndax coppeel ak tawat ñoo bokk fu ñu dëkk ci dënnu nit bu ci dugg ba ca def génn bu cofeel duggee tawat génn lu tax cofeel dafa dund cofeel bu dee bokkul ci diine Muhammad waaw te mooy cofeel bu dul jur jëf cofeel bu dul jur jëf bokkul ci diine Muhammad cofeel dafa jur jëf jur jikko jir jur topp jaaltu lahu juhdi makana shikayati wallahi moo tax yooyu yonent bi wax yépp mu wax ko ku mën adduna la ku mën alaxira la waaw ñaar yépp mën na ko te annadaafatu min al iman alxayaau min al iman inna allaha tayibun yuhibu tayib yëpp loolu taxoon mu indi ko annadaafatu annadaafatu dëkk ci set dëkk ci set ci yaram ak dëkkuwaay yeneen ci bi nee na ci yiy waajal ngëm la bokk cet ci yaram ak dëkkuwaay yonent bi nee na ci yiy waajal ngëm la bokk ci yiy waajal ngëm la bokk alxayaau min al iman nee na kersa ci yiy waajal ngëm la bokk kersa kersa nag bari na ku ko wax te xamuloo ko ndax ñàkk kersa dafa bokk ci jikko yàlla yi mu dul may kenn waaw ñàkk kersa kenn rekk ko mën muy yàlla jikko la bu mu dul jox yonent du ko jox beneen nit moom rekk ko moom ba tax nit ñi dégguñu kers ndax ku dof ñu ni diwa ñàkk kers te ñàkk kers jikko yàlla la laa yastaxyi an yadriba masalan ma waaw laa yastaxyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ndax lu ci nekk xaqiqa la te xaqiqa du tuuti du tuuti xaqiqa du tuuti wallahi wallahi fa yastaxyi minkum wallahu la yastaxyi min alxaq ñàkk kersa kenn ko moom muy yàlla moom rekk war a ñàkk kersa waaw ndax moom rekk a lamb tuwul dëgg daf koo taj bal naqdifu bilxaq ala albatil fa yadmaguhu fa idan huwa zaahiq waaw fa idan huwa zaahiq mu jeex dellu si noogu aju la waaw yàlla ne dëgg bule rouge la dénku ma ko malaaka maa ko tëqal sama bopp waaw mu fekk neen ni tëpp ci kawam fa mu doon noyyee nooga wiy dellu si wut ah. ah dafa mel ni barab yi faral di wuute rek waaye piri yi du wuute waaye barab yi nag mooy xaw di wuute. wallaay.
Maktoum Prod.
barakallahu fiik wallaay. ba tax na alquran deewul dafay dund. ba tax kenn du ko denc kenn mënu ko denc xajul ci dencukaay waaw te ñett neex nañu yàlla neex na yonent bi neex na alquran neex na waaw ñoom ñett neex nañu ba tax na naqaru jullit kenn du ko xaw a mën a nangooti kenn du ko nangu ba ci yonent bi sax jëw na yàlla bés dafay bëgg rekk am na bu ñu ko xasee moom bu ko yàlla faj waaye buñ ko xasalee yàlla na ko yàlla faj ah buñ ko xasee moom bu ko yàlla faj waaye buñ ko xasalee yàlla na ko yàlla faj waaw lu ne mën na ko supporter gannaaw dégg ñu xasal ko yàlla dawañ ko xasalee yàlla bu yàlla deful dara mu di ko jëw ci xolam wala qad naalamu wala qad naalamu أنما يضيق صدرك بما يقولون yëg naa ni mënatuloo ko si parti kon nag jaamuma waxu ko maa ngi koy faji di ah yëg naa ni mënatuloo ko mënatuloo ko supporté kon nag jaamuma wasabbih bihamdi rabbik wa kun min asajidin ndax xéewal a ngi yem ci ñu wax sa borom mu diis ci yow ba mënatuloo dund xéewal googu nag sant ko mooy woyofal mettit ga nga ca naroon na mettit te sant gi mooy nga jaamu ma ñaari mettit yoo war a neexlu neexlu ko waaw moom yadiqu sadruka bi ma yaquluun waaye du ko faj fa sabbix rek bi hamdi rabbika wa kun min assajidin waabud rabbak xata yaatiyaka alyaqin waaw waaw yàlla ne benn bunt rek mënoon am mooy mu nangu jullit jël retraite am comme retraite nag ne ci booru bàmmeel nga cay jot la nee na fekk ak a góoj ca muñal Serigne Aline Gueye ne dañu dajaloo ñun ñëpp waxtaan ñëw ci Cheikh Hadj Malick ni ko li ngay def mën a toog jéggal nañu la waaw coono yëpp jéggal nañu la ko mu ni leen waaw kañ lay faatu nee na ñu ni yàcc di ko xool nit de yéen ñi ma jéggal fitna kay wax leen ma kañ lay faatu bu ko defee ma xam fi ngeen ma ko jéggale ak fi may faatoo lu ma fay def Maktoum Prod.
day ñun ñëpp ku nekk xool sa morom te waaye it wutkat yi dindi nañ ci bind ndax moo di taxwi- taxwiilu mantiqin ila mantiq taxwiilu mantiqi almushrikin ila mantiqi albahaim waaw taxwiilu mantiqin ila mantiq lu am njëriñ la moo di làkk wi nga déggul te dégguloo ci benn baat nit taxaw ci di la saaga ba ngoon boo ca xeexee rek dof nga mënul nekk mënul nekk dal na ma ba ma xaleel booba xaw ma woon ci tukkulóor doomu tukkulóor bu déggul dara ci tukkulóor dara xaw ma woon ni kottu nekkee saaga la Maktoum Prod.
ñu dem ci waawan di xaleel noonu rek sama benn doomu tànt ni ma wax dégg nga tukkulóor ma ne ko waaw mu ne ma réew ci dégg ma ne ko kottu mu ne ma woy Cheikh Tidiane yow man ngay saaga rek ma fa fu ne ñu di ma fa wër lu ma ci xam wante lakk bi nga déggul benn benn baat nit di la ci saaga ba jant so loo ci xeexe hein ba tax boroom xam-xam yi tëral ni kiy waxe làmmiñu tooñ jàppal ŋàññam comme takk waaw aha aha tëralin la tëralin la kiy waxe làmmiñu tooñ tooñ tooñ gor yi tooñ jullit yi waaw tooñ ñëpp ngir gàtt xalak ñàkk yar nee na ŋaññ bu mu la ŋaññ jàppe ko takk waaw ah الظلم الظلم من شيم النفوس الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يغلو مهم. الظلم من شيم النفوس يلا تون لا موñale bakkanu doom adamay ka nga xool ba mu neex la te doo gis mukk mu tooñ yar na ful la ci boppam aha aha fa in tajid za ifatin fa li'illatin la yadlumu tooñ dafa jegeñ bakkan mag mu ko gëdd am na lu la ko jar wallahi mag mu ko gëdd rek am na lu ko ko jaral